liñ fi dajale tey jii moom mooy li teewoon sotti ba yàlla sottal ko mu dox ci diggante combat boo xamante ne moom la Sénégal yëpp di xaar muy diggante Modou Lo le roi des arènes ak Ama Baldé ñu koy woowee sël bu ndaw ñaari mbër yooyu nag ku ne xam ne seen komba dimension bi mu am moo tax. mu tagga témbe ba ndëgë ni waaye nag yàlla mooy sottal lépp sottal na ko bisu tey bii ba ñaari ménage yi toog séq ma ko ci ne xaatim na këyit bi wane na combat bi ñu jàppoon le 25 décembre bii ñu war a jëm li Nicolas Sarkozy ñu tuxal ko le 13 mars yàlla dogal na ko muy CNG muy ñaari ménage yi ñaari camp yu mbër yi waxtaan nañu ak li Nicolas bu déggoo ak moom ba tax ñu war a ñëw fii tey jii leeral ko askan bi yëpp kon ba ñu jàpp rek ci wax ju njëkk que ni combat Ama ak Modou Lo mi am incha allah dimanche le 13 mars 2022 fii ci arène national nag lañ ko sampagum ah ginnaaw bi ñu jógee ci loolu mu am le 25 décembre bi ñuy jëm bis bi nga xamante ne ci la Ama Baldé ak Modou waroon bëree léegi ñu ko laay def ci taxawal combat Baye Mandione bi dëkk Thiaroye nekk un grand champion. ak xoyantaan roi des arènes bu Gambie nekk Gambie nekk aussi un grand champion boobu combat nag moom la ñu bëri fii ci arène nationale bisu combat boobu tamit ci la ñaari mbër yi kii di Ama Baldé kii Modou ñoo def seen jàkkaarloo bu njëkk fii ci arène nationale non seulement Ama Baldé Modou Lo c'est une chose waaye yaa a très grand combat tamit boo xamante ne mooy xoyantaan Baye Mandione réeré mbir ne dajewoon nañ ca Gambia Baye Mandione jógewoon Sénégal fekk xoyantaan Gambia combat ba mujj yàqu ci ay détails ñu war ko seet leeral la fii ci Ndakaaru Ndiaye loolu day wane ba tey rek Sénégal ak bi benn dëkk la kenn mënu ko xar ñaar ñu war ci toftal nag aussi bisu combat boobu le 25 décembre daf la ñu war a communiquer parce que moo jiitu li des bariwul 20 jours la wala mois de 20 jours ñaari mbër yi nangul ñu ko ci diir bu gàtt boobu pour war a ñëw bëri ko parce que loolu day wane na ñaari mbër yi euh, dañoo bokk ci mbër yi nga xamante ne. bu leen joxoon avance samedi dimanche ñu xëy bëri ji loolu dafa am importance trop ci ci làmb te loolu dafa raar ñu taftal ji nag juróom-ñeenti combat ak grand combat muy fukki combat Ama Baldé fa daje loolu rek doy na événement ah, ku nekk nag xam na ne am na fi yu amoon ci diggante Ama Baldé ak Modou ak promoteur bi jamono metti woon trop mbas mi dugg fii làmb gi tijji duggaat fi tëj ñu programmé vingt cinq décembre ci diggante Modou Lô Ama mënul nekk promoteur bi bëgg jël élan ku ne xam na ne organiser lamb dafa metti tu peux pas dépenser des centaines de millions ba pare bu ko tënk ci diir bu gàtt ko Nicolaï amul benn problème problème bi mu am rek mooy diggante bi gàtt na octobre ak décembre pour ñaari mbër yi bëri ci mais teewul tamit conscient na ci ne mbër yi tamit am nañ makaa gañe sonn nañ ci combat bi dàq nañ ko dàqati ko mbër yi nekk ci préparation te ku ne xam ne lii préparation mbër ah Luc Nicolaï nag déggoo ak ñaari camp yëpp ku ci nekk mu wax li mu war a wax yow ku ci nekk mu def ak yow li mu war def ak yow ba tey jii ñu mun fi daje pour combat bi nekk le 13 euh, mars di ci gërëm ménagère u Modou Lo mi def sama ginnaaw di ci gërëm Abdou Bakhoum mi nga xamante ne tamit moo nekk sama càmmoñ yore Ama Baldé le coordinateur tamit ménagé wul aucun effort dañ na ci lu ne nelawul woon guddi nelawul bëccëg pour mu sotti le président du CNG mi nekk suñu wet aussi jël na ci batoom def ci ay coono pour yu fi mun nekk làmb nag moo bindoo noonu et dinañ gërëm aussi ki nga xamante ne kenn la ci facilitateurs yi ñu koy wax euh, Abdoul Aziz Guèye nekk la mentor de Ama Baldé moom tamit daj na ci ay coono ku yëfi mu nekk ku ne xam ne làmb noonu lay deme toujours am détail mais toujours rek dañ koy mujj arrangé ci ay mbokk tey jii alhamdulilah bi alamin jëmuñu fenn fudul rek le 25 décembre xoyantaan Baye Mandione le 13 mars Modou Lo Ama Baldé combat royal renonce caché bon en fait ku nekk xam ne ne mbër bu sentir ne dafa dañ ko impacté ou dañ ko dañ ko tooñ te mu ne ci dëgg day bëgg ko defal ralonge mais rallonge boobu posé wul problème ci diggante ki nga xamante ne mooy promoteur bi ak ménager bi waxtaanee nañ ko déggoo nañ ko muy Modou nag parce que bu leen ne Ama Baldé kese de muy Modou Lo muy Ama Baldé ku ci nekk rek fi ñu ko mun a tënkee rek mooy waxtaan nañu ba déggoo ci ay kàddu kàddu ngor. ah kay dafa nañu rallonge mais nag di publicité rallonge bi ñu def. du mën a nekk waaye daal defal nañu rallonge bokk na gis sa bopp muy promoteur bi ak muy ñaari mbër yi. la presse en ligne bo déjà yéen fi nekk ah les premières heures li dafa sàkkoon presse en ligne bi yëpp rajo yeeg télévision yeeg presse écrite bi yëpp ñëw assister lii ñu xam ne nekk na léegi nag mu des nag beneen liggéey ci ginnaaw beneen liggéey bi nag moom mooy ah yéen seen taxawaay lan la ci combat bi nan ngeen war a taxawee ba ba ba Luc Nicolaï réussir réussir événement bi. parce que tamit dafa compter ci yéen pour réussir événement bi comme yi ngeen li ngeen compter ci moom pour aussi mën a am ay éléments mën ci liggéey donc dama yaakaar ne rek su jaaree yoon eh, ay protocole am ay signature de contrat am ñi nga xamante ne jekku nañu mën nañu ah approché Luc Nicolaï équipe am coordonnateur mi ngi nii waxtaan ak moom lu ngeen fa signé d'accord ko rek je pense que Luc Nicolaï dina ko ànd ak yéen su jour boobu jotee tamit ngeen ñëw def li nga war def mais loolu nag. dafa des ay weer des ak coordinateur bi pour mu ci expliquer en tout cas ubbi na buntam moom pour liggéey ak presse bi yëpp loolu yaakaar naa dara gënu ko neex kon boog laa baal ay dans votre camp nan ngeen koy approché ba liggéey ak moom kooku ci yéen lay des. li nga xam ne moom la Sénégal yëpp soxla ku nekk xam ne ne ñun yàlla daf ñu dénk ñu am jeunesse boo ne dañu excité et puis bu ñuy supporté mbër dañu ci dem ak seen xol dafa ne sax jaral seen bakkan mais nag li ñu ci mën rek mooy sensibiliser leen te ñan ñoo war a njëkk sensibiliser supporters mooy mbëri yi bëre seen njaay nekk ci làmb que mu nekk Ama de que mu nekk Modou Lo ku ci ne war nga wax seen supporter xamal leen ne leen lii mooy sama avenir ci laay yor sama njaboot ci laay def sama avenir yéen nag di ngeen ma bëgg kenn gënoon mu leen waaye dañ bëggoon ngeen jàppale ma ci lii communication bu jaaree ci mbër yi rek à travers les supporters rek je pense que ne du am benn problème surtout que nag aussi quand il y a des problèmes à l'intérieur du stade ñu gis ñu saccagé euh, tribune yi di ko damm dafay répercuté ci mbër mi gars yaa ngi koy kaas mais kaas ba bu ñu kaas la gën ca kaas ba mooy fexe ba kenn du toj ndax li fi nekk patrimoine national la ñëpp ko moom amul kenn ku ci ëppale sa morom même le président de la République ñu ci ñëpp ñoo ko moom ñi koy yàq nag tooñkat lañu ñu ko yàq dañ bëgg ñu teg leen ci yoon parce que caméra yaa ngi fi di caméra yaa ngi fi ku ñu gis nga jël sees damm ko ñu identifié la mais jël la teg la ci loxo yoon parce que yoon rek moo ko mën a faj mënoo fekk lu ko ba pare dem tëdd sa kër tranquillement ñu jàpp la yóbbu gis ngeen ne xale yi dañu di jàpp yóbbu leen ba griba du fe duñ fa xaj bu suba gaa ginnaaw suba ga sénégalaisement ñu bàyyi leen ñu dem c'est pas la bonne solution il faut ñu leen teg ci yoon teg leen ci raay ah alhamdulilah ay bi ngeen ne nag mbëri yàqu ñu làmb ji mbëri dañuy waajal daj ci ay coono ñëw entraîné dugg ci géew pour bëree seetaane jóge ca biti fu dul mbër attaqué mbër mbaa supporter attaqué mbër kenn mësul gis loolu ci ko àdduna mbër mi moo moom làmb moom moom làmb dafa waaye moom mooy ki ñuy seetaan si attraction bi moom la démb ku seetaan si làmb rek koo seetaan si woon démb Siteu Papa Sow musu ñu ne seetaan ndax li fi xew ñu bañ cee continuer mais daal dañu war a gënaat yéen surtout réseaux sociaux yi war ngeen a gën a góorgóorlu ci di def ay di am ay ay ay ay émissions yoo xamante ne c'est pour éduquer ko ko yéen gis nañu yéen làmb vraiment mooy ëpp ci li ngeen di def ngeen di sonn ci xale yi ni ngeen di laaj bëri ngeen koy laaj supporters yi ñu sensibiliser pour mu baax jeunesse nag boo ko amee mu excité mun a def dara lu sensibiliser ko wax ak ñoom conscientiser leen ndax ñoom suba ñoo ñoo yore réew mi bu ñu ko commencé nii nag continué ko ba tal na ñun kon kon làmb day xëy bi sëkk tëj donc nag sensibilisation bi ñun ñëpp la war sécurité bi nag mi ngi appartenir à l'État ñoo indi ay service d'ordre ñoo indi gendarmerie démb li fi xew démb ci ay takk-der na fi gëj na am ci làmb fii yëpp lañu encadré piqué na géej waaye fu fu mu la rek encadré nañ ko pour bañ jéey am pourtant jéey amul ci nag wala bu amee tamit ñi raas déem ak ñeneen ñi bokkuñu ndax ñëpp yemuñu ni ñuy ñëw ci làmb ñi dañuy ñëw pour saboter ñi ñëw pour sàcc ñi ñëw pour agresser mais nag sur 1000 agresseurs bu dee kenn kenn moo ci réussir poñam rek mooy service d'ordre bi def nañ à peu près quand même li ñu wax def ñi ngoon ci biti ñi ci biir ñi ngoon aux alentours autoroute beeg APH yi fépp ñu ngi fa woon def nañ seen war góor bu mat sëkk donc dañ ciy jàllaale remercier nos forces de l'ordre ñi nga xamante ne ñooy gérer les biens bu bu yi ak di def seen sécurité seen maximum ñu ngi koy def boo génnee sax da xool da ngeen di yërëm dañuy taxaw fii ba mu une heure du matin ñu doog a ñibbi donc li loolu nag ah jarul ñu koy guddal mooy ñun ñëpp la war pour ñu taxaw pour loolu yëpp jeex.